maa ngi nuyu waa gépp di nuyu ñi fi teew ñëpp amul exception nag mag ndaw góor jigéen ñooy nuyu ñëpp di nuyu presse bi yéen ñi fi teew di nuyu àdduna di sàkku ñaan bu wér wér di wax ne gars yi nañu ñaanal ay tuut tànk nekk si yoon nañu ñaanal. ñu gis tey nga def open presse waa Ngor gépp génn naka nga koy dundee. waaw loolu sas la yaakaar naa nga xewle ni ñi teewal la rek am na lu mu lay yokk te combat bii nii dafa doon combat bu ma respecté bu ma fonk barke combat bu ma daj ay coono la combat bu ma entraîné la te bu jour ba dinañ xam dara. lan moo tax nga respecté ko. adversaire bi moo toll noonu wala combat bi la. non combat bi tollul noonu adversaire bi tollul noonu lamb moo toll noonu man damaa am cër si lamb dama si am cër te li ma si moom dama koy jël ku teg sa loxo ma dagg loxo bi barke alxuraan. sa diggante Paul bu daaw lan nga ci naan xeex wala bëri wala da nga ñëw toog xaar moom mu dirigé nga li ma waxoon bi passé rek laay waxaat. su ko neexee dinaa ko daan su ko naxaree naa ko daan bu ko neexee nag na ko neex parce que bu ko neexee dinaa ko daan bu ko naxaree naa ko daan. loolu foo ko teg ci entraînement wala ci mystique wala fan nga teg loolu. tegu ma ko fenn fu sama gëm-gëm ak li ma liggéey teg ko si loxo yàlla tamit suñu borom mais dama gëm ne li ma liggéey xajul si kaw pël bu daal loolu laa gëm. est-ce que xam nga ne daanaan la. ndaanaan ndaanaan moo koy rendi waaw. loolu nag dafa yoo caay-caay boo xamante ni nii gis nga boo jëlee avance am wax ji yomb na waaye bu abit sifflet bi génn seen diggante lu waaye waxoon danaan na ca man 15 combats laa def saa yu ma ñëwee damay jëflante 15 combats mosuma raay mbër ku ma bëreel encaissé nga kon du Paul bu Daaru mooy taxaw suma kanam may am lu may laam-laame si moom su ma am tuuti lu may laam-laame si moom ma bàyyi làmb man du Paul bu Daaru la comme adversaire yëpp mais a a li la muy di wax naan dañuy jure est-ce que jure dina ba ka neexee dina jure ba ka naqaree dina jure. waxaat ko. ba jure ba mais lan ngay waaj la cinq parce que ku ne xam ne ne Djibson moo woote ngeen nekk ay xale war a ñëw bëri grand combat naka ngay waajee mobilisation ah xam naa ne t-shirt yi moom fii la fi la fekk baax ak blouson yi mais naka ngay waajee. waaw comme ni mu daan waajee rek bés moom du weesu bés. yooyu te loo bañ mu yegg si rek bu ko jàppal jour. question waaw. xaarim waaw ñun ci moom bu njëkk ba de non ma si débat parce que parce que ku ne xam ne nu mu demee am na loo xamante ne làmb jaru ko yooyu combat bi dafa taxawoon yàlla dogal suma waajur laaxu loolu du ma ci débat du ma bëree làmb jaral ma loolu mais tey lañ war a bëri le cinq dimanche bu bus ba dina xam ndax dama ko ragaloon wala ragalu ma ko woon waaw bañ yegg bañ yegg si boobu daaru nga ne ñi ma ñu maa xeex ak yow bañ yegg si ngor na ma dëkk te ñàkkuma fayda wax na ma la ko dama la kaa waxaat ngor na ma dëkk te ñàkkuma fayda bu ni ba ndaw la ma dama entraîné ba maa ma xool dama nii barke alxuraan xajuma sa kaw boo dootoo dama lay lekk du ma daan dama lay lekk président CNG da koy aaye de su ma ko lekkee si géew bi du am problème avant géew bi day am problème boobu daaru day xaar mais naka ngay waajee mobilisation gisoo ni teew fii lii ku mu sasul dara du la sas ñi dama leen defal tax ñu ñëw taxaw fii defal ma leen dara damaa am dërëm bu ma leen may wala ñi ñoo jël seen xaalis di ko def si man ba pare su ma xewlee ñëw teewal ma ñii tax ma rayante barke alxuraan sama bakken laay teg ngir ñii parce que am na lu ñu ma jaral te ngor dafa am lu mu soxla muy ndam te dinaa leen ko indil si kàttanu yàlla. waaw ñu fàttali ko nag euh, Siteu ba na daan fëgg la ba ñàkk la tegu ci. làmb ak loolu ñoo ànd. non loolu ñoo ànd dañuy commencé Feugeuleu dañ koy ñaanal yàlla ne ko yoon bi noonu lay tàmbalee yoon boo gis noonu la Feugeuleu champion la ñun xam nañ ko ñu ñu dëkk moom toujours prêt champion la xam nañ ko ñu dëkk ak moom Siteu bu a waxatuñ ko équipe bi ay champion fi nekk mais làmb dafa am lu mu àndal bu ñëwee dañ koy nangu mais nañu wax ne bés bii nii du bés bu ñuy ñàkk dimanche du bés bu may ñàkk incha allah yaa ngi wax di waxaat rek yéen damay wax lu ma ñor xama dara bu la ñoree da koy wax gëm ko dëggu si li ma ko wax nii ba ñuy signature li laa ko wax te bu ma taxawee fi moom laa koy wax te buñ duggee si géew bi bu war bi di si lu naa ne lan la la bi la déy laa bëgg a déewuñu ma dara damaa entraîné am doole kese tegu ma ko fenn nag pour sama entraînement suma doole ak suma xam-xam. loo koy wax. na dëggal boppam rek parce que moom tàmm na bu ñëwee xool baaxul mu ñëw fa taxaw jëmale ginnaaw suba bëri na fi ba combat boo xamante ne 30 minutes dóorul songul man nag làmb dañ maa am lu ñu ma xamee mooy jëflante bu ñëwee na dëgër bu faam ay taaw fii jéggi saako ak yi man bëgguma ko daan fay avertissement wala ay dóor décision arbitre na ñëw dëgër bu faam su ko defee ñi nekk si kaw tribune sax dinañ wàcc jàpp sumay loxo pour ma bañ a dóor baal li nga wax li maa la ko wax <laughs> wooteel waaw rek di waxaat ne leen ñun seen ay doom lañ yee ñun amuñu lu ngor mënuñoo am lu ëpp ngor mënuñoo am sax jege tool loxo ngor nañ ñu ñaanal yokkaat ñu ay ñaan ñun ay doomu dëkk bi lañ yee te ñun dëkk bi dañu yaakaar maanaam làmb dafa war a dund si dëkk bi te ñu ngi si tànk yooyu noonu nañu gën a ñaanal di gën a sàkkuwaat ñaan man laajuma xaalis de man ñaan laay sàkku ndax gëm naa ne ma ñaanalee lu làmb di indi ngor man mën naa ko fi indi ak keneen ak keneen su suñu ma ñaanalee barke alxuraan balaa yàgg dara ma duwal fi làmb di coow te gëm-gëm boobu laa am di wax may copain ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxawu sama làmb bi mu taxawee ba léegi sumay xarit yi nga xamante ne démb lañ ma jàppoon tey door a ñëw mosuñoo bàyyi dañuy jël seen xaalis di ko def si man combat bi li ma ko préparé boobu ba léegi génn sama poos suma gars yi ñoo koy génnee ak ku mel ni docteur Niang taxawaayam rafet na rafet na dañ sax saa may li may entraîné moo gën a seer si Dakar moom moo ma ko fayal di ma jox taxi may dem ak ñëw loolu ku la amul yaakaar rek yow du ko def dama koy ñaanal moom moo xam li mu bëgg yàlla na ko suñu defal di woo la maire de Ngor Mama si ñëw jàpp ñu ngi koy xaar di woo antu Samba na ñëw jàpp si xam nga di woo taraa di woo baay Boris di woo Doraso Youssoufa Meng di woo Jib Samba ak Dike xama di woo Ibra di woo waa Ngor gépp képp ku ñu tuddul rek nañ xam ne maanaam xel moo fattu mais ñu ngi woo ñëpp yaa ma gën a xam dimanche incha allah maa ngi jox ñëpp rendez-vous arène nationale wàccee gan gi si ko loxo bi dañ koy bàyyi. kañ ma ca tàngal bi boobu la ñuy bis. rendez-vous le 5. rendez waaw rendez-vous le 5 di leen gërëm yéen presse bi xam nga yéen ñëpp maa leen di gërëm parce que teewaay bi yombul waa amaana ñun ay tuut tànk lañ defuñu fi lu tax ñu war a mën a xewle ngeen teew mais yii yëg-yëg la quoi ñun lii du geste bu ndaw si ñun barki alxuraan fii ñu fi toog ñëpp suñuy frère lañ ku si nekk dañuy déggante ak ñoom ay lien yu rafet lañ am donc loolu noonu mbégte la da leen di ñaanal jàmm ku si yor télé bu ndaw yaa na nekk tele bu mag ku si amagul télé yaa na am télé barki Seydina Mouhamed mais di gërëm goo xamante ne suma gaayen lawoon woon léegi mooy loolu xaarante seeg day xaar waaw defe naa la léegi